jàngat bi ñu ci am ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ñu ñu kontaan trop ndax euh, at mi ñu jénn ci at euh, at mu jafe la woon ndax euh, feebaru Covid bi corona bi mu ngi fi waaye it nawet bi ñëw rax ci ñëw ci malgré loolu yëpp yàlla dimbali ñu ba. Euh, nous assurer continuité pédagogique euh, enseignement à distance bi doon continuer ci sunu programmes apprendre à la maison muy ci site internet yi télé yi radio ci communautaire yi euh, am na sax ay cours photocopier jox ko parce que nous tax des yàlla ñëpp jàpp ci rajo yi télé privé yi pour que nous mi continuer ci kër yi ah loolu. Euh, le 25 juin ñu reprendre cours pour classe d'examen parce que classe d'examen yi suñu reprendre woon euh, tey jii am na juróom-ñett fukki junni xale yoo war nañu dem see kon kenn du am fu mu def sans compter nag ñi bëggoon am bac am prescription te tey xale yu bëri ñi ñu dem bitim réew pour dem yeggali seen jàng ñii daal ñu dem ci université yi pour yeggali seen jàng ñii sax xëy am ay concours yu yu yu ñu euh, euh sous réserve de bac euh jii am nañ seen bac jar nañ concours yooyu kon wax deug yalla président euh, jël na décision bu baax président Macky Sall jël décision bu baax parce que euh, bu tëjoon école yi dañ naan jaadu waye waaye jël na décision bu baax bi mu permettre ñu lubbi l'école yi té lolu ministre taala xarna ci tànk tubéyam pour que. Euh, njàng mi yegg euh, examen yi yegg yàlla dimbali ñu nag non seulement njàng yi yegg nañ examen yi def nañ ko ci condition yu baax waaye it résultat yi euh, vraiment vraiment ëpp na suñu njort loolu nag am na jàngat yu bëri yuñ ci mën a def ci kanam waaye day war na rek nii dogg doomu aadama xajul dara parce que su problème amee au lieu nga toog di jàmbat au lieu nga toog di croiser les bras voilà di defet di def ay position défaitiste mais da nga war a dund nga taxaw euh, pour solution am té Sénégal taxaw na euh, pour solution am ñu ciy gërëm nag euh, kat yi élèves yi parents élèves yi organisation société civile yi gouverneur préfet sous-préfet IA IF ministère yi nga xamante ni yëpp dañoo ci conseil ministère interministériel bi wax dëgg yàlla ñu ngi ci gërëm ñëpp ci turu ministre Mamadou ah di wax nag incha allah balaa yàgg daañu ubbi école bi.